Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique de grands événements. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après. dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak Thiénaba TV euh, waxoon nañ leen ko léegi Saint-Martin la ñu dem ànd ak Baye Serigne Assane euh, te xeer wa muy daaray euh, Maam Momar Talla Seck bi nga xam ne Serigne Ahmed Dame Seck moom moo ko fa sampo ñuy ñaan rek yàlla na yàlla sottal. Euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi ginnaaw bi euh, la ñu ànd ak waa Thiénaba TV ànd ak la délégation euh, di xalif général Baye Serigne assan Seck mu nekk oto yoo xam ni kenn mënu koo lim ndax lim bi dafa ëpp ab dayo waaye bi ñu duggee fii nga xam ni moom mooy njaben Toubé tamit liñ fi fekk ëpp na dayo ndax fekk nañu njaboot gi ñoom ñëpp ñu ànd ndey ak baay àndandoo rek di yëkkati baat ba nga xamee ni moom la maam Ahmadou Ndaak Seck daan yëkkati muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko teeroo Baye Serigne Assane Seck mi nga xam ni mooy xalif général bu Thiénaba di jaajëfal mbokk yi kon ci kanam tuuti incha allah délégation bi dina agsi fii nga xam ni macha allah moom mooy Ndiabène Toubé ñu teeru Baye Serigne Assane Seck di ko sargal di ko jaajëfal maam Ahmadou Ndak Seck lii daf ñuy fàttali. Euh, li nga xamee ni euh, moom la délégation la fédération de Saint-Louis euh, àndandoo woon daan duggee ba tey bi ñu duggee fii la ñuy fàttali ndax tund Toubé ku fi dugg rek sa xel dina dem ci lu bëree bëree bëree bëri macha allah di jaajëfal mbokk yi suñu mbokk sekk Seck lañ fi fekk yàgg nañ ko fee fekk commentaire bi lan la sekk fii ki nga xam ni moom mooy mooy Ndiabène Toubé waaw tey jii nag salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum mbokk internet ak waa Thiénaba TV rawatina yéen a xam ne yéen ñoo ñu dégg rawatina li nga xamee ni suñu baay suñu baay Alla Fall ngi noonu ñëpp yàgg ka di ko déglu si rajo ak li nga xamee ni moo déggee fa trabacal la macha jigéen ñi ngeen di dégg la délégation forte bi nga xamee ni toujours ñu xamee ka si li nga xamee ni moom mooy di fédération li nga xam ne moo di Thiénaba ñoom ñëpp ñoo ngi leen di dégg ñoo ngi ñoo yor si si tey jay mun na ni fukki penc yeeg ñaar yëpp ñoo fi daje li ko dooree ngay ngay ak li nga xamee ni moo di gàndong ak li nga xamee ni moo di fi nga xamee ni mooy tube yëpp ñoo ngi ba tax na jii ñu ñoo ngi am kontaan ak mbégte ci wàccuwaay li nga xamee ni moo di sëriñ bi sëriñ bi nag suñ ko déggee tey voilà ñoo ngi seen suñu doyen suñu doyen ki nga xamee ni moo di euh, euh, Aliou Saliou Diop bi nga xamee ni moom mooy teewal fépp si nga xam ne moom mooy fédération. Touré ak rawatina ne Guèye Ndioro loolu moom mooy li nga xam ne moo fi xewagoo en attendant ñooñu nag instant yii fii nga xam ne moom mooy kër chef de village de nga xam ne moo di Ndiabène Toubé kër suñu ne kër Baye Amadou Sy rek wax ci day daal di jeex bon Guèye Ndioro en attendant les événements ñu kon ne tuuti ba si kanam ñu mun a jotaat ñeneen. xam naa ku dugg Ndiabène sa xel dina dem ci Baye Moussa Diop. Euh, mi nga xam ne moo jiite woon la fédération des daayira Tidiane euh, ji Canaba bi nga xam ne moo nekk fii ci département bu euh, Ndar doon fi liggéey liggéey boo xam ne liggéey boo am solo la waaye kenn mënta dugg fii di Ndiabène Toubène sa xel demu ci maam Maguette Coumba Sylla Euh, mi nga xam ne macha allah magum canaba la woon mu fi nekkoon euh, doon dundal diine ji maam ji bi sekk euh, moom tamit macha allah ñu koy ñaanal yàlla na yàlla dugal ko àjjana te mu dëkk fa ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam waaye maam Bakka Diop moom tamit noonu maam Madiaye Ndaga ah, maam Ali Gueye ak maam Ndaga Diop ñoo ñëpp ay mag lañu woon yoo xam ni Cheikh Thiénaba bu fi daan ñëw ñooy ñëw ànd ak moom teeru ko seen i njaboot ñoom ñoo teeru ki nga xam ni moom mooy Cheikh Thiénaba waaye tund dinañ ndar euh, ndar Baye Aliou Diop suñu xel daf cee nekk euh, góor gi euh, du Niang moom tamit suñu xel dafay delluwaat ci moom waaye Baye Abdou Diop bu lew na moom tam suñu xel dafay demaat ci moom mag ñooñu ñoo daroon Cheikh Thiénaba am naa taala ci kanam tuuti dinañ gis ni cortège bi yaatu na yaatuwaay boo xam ni am na solo xam naa dañuy dugg rek ci biir public bi bu ñu mënee am ñaari kàddu. tey yëg-yëg bi lan la Mame Boye. yëg-yëg mooy lan sanu pap Ceneba la bokkoon Maguette Yacine papa yi Modou Mbaye inspecteur ñoom ñëpp Ceneba Ceneba la man ndar laay say loolu moo ma indi sama maam bu jigéen fii la dëkk sëy si beqaar boo nag tey dañuy am mbégte Moussa yaayam ñoo koy jox sagaru njaam ñu tuddee ko bis bi ñun waa ndar ñun ñëpp ñëw noonu teew ndax ku ne sa dëkk nga am ku ne sa mbokk nga am sëriñ bi dañ daan dem Ceneba di dugg otoraay booba xale lañu suñu papa yaa nga bar ñu leen di ñaanal gudd fan ak wér ñu ñu gudd fan remplacer leen Moussa yàlla may ko àjjana moo amee woon fédération ak Pape Samba ngay ngay moo leen amee ak Bekkaar ñoo ngi ñaan ngeen eggale si jàmm ak salaam waajur yi ko sosoon yàlla may leen àjjanay firdawsi ñu toog fi di leen ñaanal ak njaboot gi waaw. Ah, kon ah, mu ngi noonu ah, délégation yaa ngi noonu di dugg si waaye njaboot gaa ngi taxaw ñoom tamit di teeru ki nga xam ni mooy la xalif général. Euh, de Thiénaba le neuvième xalif général Baye Serigne Assane Seck euh, di ko ñaanal mu yàgg fi te wér euh, baat ba lañ koy teeroo muy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baat ba nga xam ne moo taxoon maam Ahmadou Ndak en 1871 mu bàyyi lépp dëddu lépp dëddu njaboot waaye dëddu ab dëkk dëddu ay tool dëddu daara ja dem fekk maam Cheikhou Amadou mi nga xamee ni macha allah tey euh, ñoom euh, tuur nañu seenu deret euh, ba tey ñu samp lii nga xam ni moom mooy baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Thiénaba TV noonu la koy dundee ak saa su nekk Thiénaba TV muy Baye Serigne Assane a ngi noonu Baye Serigne Assane a ngi noonu Baye Serigne Assane a ngi dugg na Ndiabène Toubé Baye Serigne Assane dugg na Ndiabène Toubé oto yaa ngi koy dara oto Serigne Assane borom moo nekk noonu. Baye Serigne Assane mu ngi noonu euh, oto bi ci topp euh, muy oto monsieur le maire Talla Diagne moom moo si topp euh, mu ngi noonu topp si ginnaawam waaye mu ngi noonu njaboot gi ñoom ñëpp benn par benn ñoom ñoo topp si ginnaaw Baye Serigne Assane la jeunesse dar la sécurité dar ko Baye Serigne sek mi nga xam ne mooy neuvième xalif de Maam Ahmadou Ndak Seck fi nga xam ne moom mooy Ndiabène Toubé mbaa maam Maguette Diop maam Maguette Koumba Silla ma yëg na ko maam Jibi Seck yëg na ko man Baka Diop yëg na ko Baye Serigne Assane mu ngi noonu macha allah di dugg fi nga xamee ni moom mooy calaba calaba amati na ndam Baye Serigne Assane dugg na Ndiabène Toubé xalif général dugg na Tundu Toubé xalif général dugg na Tundu Toubé xalif général dugg na Tundu Toubé saf bi dëkk na saf bi dëkk na bu leen safaat te bu leen mu nekk loo xam ne lu am solo la sekk tey lii moo xew fii. ci njabeen Toubé Baye Serigne Assane Seck dugg na Thiénaba dugg na Ndiabène Toubé waaye juumuma ndax Ndiabène ah, ci biir Thiénaba la bokk mbégte am na li xew fi kenn mënu ko nattamle macha allah. waaw Guèye ah, tey jii macha allah ji jii macha allah gis nga nga xamee ni tey lii ñëw na tey gis nañu penc mi. waaw ñi fi gëjoon ñëpp ñoo ngi gisante. Mhm. tey dëkk yi nga xamante gëjoon noonu gisante rawat na fii tey ñoo ngi ci penc mi nga xam ne mu lay wax ke mi mbaa ngaraaf Baye Amadou su masaan ñëw fii la daan dëjgaañi Baye lu masaan xew njabeen fii la ñu daan toog di ko waxtaanee fii si bayaal bii nga xam ne moom lañ jëm nii fii nga xamee ni moom moo di fi la yàgg wàcc fi la yàgg di dalal ñi nga xam ne mooy magum tube yi ba tax na une forte délégation Baye Fallou li nga xam ne ni mooy borom canaba yi ñoo ngi noonu di dugg si ak ci li nga xam xamee ni mooy si sikar si am solo soosu nga xam ne mooy. indi 1882 lañ ko sos ginnaaw bi maam Amadou Daak jógee. Euh, foofu àndoon ak maam Cheikhou Amadou 11 février 75 ci la def Samba Sadio 1868 euh, ci la dem fekk maam Cheikhou Amadou ànd ak moom liggéey bu liggéey bu rëy bi nga xamee ne liggéey na ko waaye moom maam Amadou Ndaak nekk fi euh, ba 1899 euh, mu euh, bàyyi ndonoli ak maam Momar Talla Seck waajuru bàyyi Serigne Assane nekkoon fi ak maam Madické nekkoon fi ak mam Ibra Penda liggéey fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bi mu fi jógee mois 1946 moom si la Serigne Ibrahima Seck jël xilaafa gi bàyyi Serigne Jibrilu Seck nekk fii macha allah di liggéey liggéey boo xam ni liggéey bu am solo 1973 euh, ci la génn àdduna jox bàyyi sëriñ Alpha Mamadou Seck 88 maanaam fa jox ndono li bàyyi Serigne Mouhamadou borom a Seck borom euh, baayu ak borom euh, baayu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaye 92 euh, ci la jógee ci la fi jógee bàyyi fi bàyyi Serigne Ousseynou Khoudia baayu Serigne Modou Rokhaya di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ba matal dem bàyyi fi bàyyi Serigne Ousseynou Khar borom sikar leen ku sikar sa sikk dina dañ bàyyi Mame Alé Seck ci la nag fi jógee bàyyi fi borom alxuraan bàyyi Ahmed Tidiane Seck mi nga xamee ni liggéeyal na diine ji Baye Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xamee ni moo sampaat daayira yi samp la fédération de Saint-Louis moom bi mu demee ah, ci la bàyyi ah, xilaafa ak Baye Serigne Abdou Rahim Seck nga xamee ni macha allah ah, fukki weer ak juróom la fi def mu wecc ñun fukki at liggéey fi liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la dajalawaat njaboot gi teg ko ci loxol Baye Serigne Assane Seck mi fi euh, yore xilaafa gi tey euh, Baye Serigne Assane le xalif de Maam Ahmadou Ndack liggéey liggéey boo xam ne liggéey boo am solo la Baye Serigne Assane boobu moo topp di seeti njaboot gi euh, première sortie Gossas la ko defee deuxième sortie fii la ko defee ci Ndiabène Toubé fekk si tund Ndar fekk si tund fekk si fekk si njaboot gi mu nekk loo xam ne lu am solo la Seck lii moo xew tey fii ci Ndiabène Toubé. macha allah Guèye lii nga wax nii tey doy na si nga xam ne mooy a chiffre la. ñoo yi nga xam ne yéen a seetaan dina topp si li nga xam ne mooy suñu antenne bi nga xamee ne mooy Thiénaba TV yëg ngeen li nga xamee ni moom la sëñ Guèye baaxee ñu njaboot gaa ngi nii suñu kanam di teeru wàcc na fii mu wàcc nag moom mooy fi nga xamee ne yàgg na di fi wàcc penc mi fi lañ daan fale penc mi fi lañ daan defaree penc mi si la daan waxtaanee li nga xam ne mooy magu njabeen yi bon macha allah tey jii su alhamdulilah bi nga xamee ne mooy deuxième sorteem bi mu ñëwee fii nga xamee ne mooy si penc mi xel war na mun a dal rawatina nag tey dama gis xale yi taxawaat beneen façon rawatina nag dëkk bi ñoom ñëpp ñu takku génn ak seen ay mobilisation ak li nga xamee ni moo di mooy xale yi ku judd rek. tey maam Amadou Ngoné ngay waxtaane ku judd rek seen ma dikka ngay waxtaane loolu xer war na mu si dal macha allah ah, Serigne Adama Seck mu bàyyi taala xaar ah, mu ngi noonu taxaw ah, ñu ngi koy ziar Serigne fa Ba mi nga xamee ni moo fi teewal waa Wuro Madiou a euh, Asek borom ndigal euh, mi fi teewal njabootu maam ma dikkee waaye gis nga euh, ki nga xamee ni moom mooy Serigne Abdou Wahab jóge Thiénaba Gossas ñëw ànd ak waajuram mu ngi noonu taxaw di Serigne Alpha mu bàyyi Talla Xaar monsieur le maire Talla Diagne wala Serigne monsieur le maire Talla Diagne mi nga xam ne nii la maamam àndee woon ak ki nga xam ne mooy maam Ahmadou Ndak Seck kon Serigne Khalifa Seck bu bàyyi Abdou Aziz joge na Kajoor ñëw ànd ak waajuram muy bàyyi Serigne Assane Seck Serigne Mouhamadou Madou Cissé bu Alaaji Talla Cissé njaboot gi. noonu lañu ñu àndee El Hadj Mor Birame noonu la ñu àndee rek ànd ak seen waajur Baye Serigne Assane euh, mi nga xamee ne allah euh, moom euh, wër na njaboot gi nemmeeku leen El Hadj Pape Mor Gueye mu ngi noonu ñu koy seen moom tamit noonu rek la ànd ki nga xam ni moom mooy waajuram maamam noonu la doon àndee ak njaboot gi kon benn par benn koo ci lim. Euh, nii taxawaay ya am moom la maamam wala baayam amoon démb ak euh, barki démb euh, di ziar mbokk yi nga xamee ni ñu ngi gis lii di ko béggee di am mbégte moo xam ne mbégte mu yaatoo yaatu la xew fii Serigne Diop Dior mu ngi nale taxaw moom tamit ànd ak waajuram di ñëw rek pour teeru ki nga xamee ni moom mooy Baye Serigne Assane Seck Euh, mi nga xam ne mooy neuvième xalif de maam Ahmadou Ndak Seck euh, ñëw fii ci tund euh, Toubé ñëw seeti njabootu wa Toubé ñëw seeti ñi nga xamee ne macha allah ñoom ñooy noyyee maam Ahmadou Ndak Seck ñu ñaanal leen. yàlla na yàlla def jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon Thiénaba TV noonu lay dundee ak yéen lépp loo xam ni xew na fi euh, ci biir ak ci biti ci ruq yi ak ci ruq-ruqaan yi euh, muy taw baa muy naaj euh, muy sedd baa muy féex dina leen ko wan macha allah yéen ñi nga xam ne yéen a ngi leen di bëggee di jaajëfal tous les internet yi nga xam ne à travers partout dans le monde ñu ngi seetaan di topp Thiénaba TV waaye njabootu maam Ahmadou Ndak gi nekk ci biti fàttewuñu leen kon nii la ñuy duggee ci kër gi sekk yaakaar naa mu nekk loo xam ne lu daw yaram la. du niguleet tey jii ki nga xam ne moom mooy waa ba fi la ñuy wàcc kër gii tey dafa bëre loo xam ni dafa am loo xam ni daf fi xewoon ba nga xamee ne li nga xam ni ki nga xam ne sunu maam mu mbaax mi nga xamee tey sëtam moo ñëw fii tey jii moom la nu àndalaat rawatina ki nga xamee ni toute la force de délégation bi nga xamee ni muy sët di doom ñoom ñëpp ñoo ngi fii dégg nga li nga xam ni sikar saa ngi noonu indi mayib yaa ngi jip tey jii dëgg-dëgg njabeen dekkiwaat na ci beneen anam. Euh, njabeen njabeen njabeen dekkiwaat na ci beneen anam euh, magi njabeen euh, ñoom bëgg nañu macha allah fàttaliku suñu góor ga Baye Moussa Diop président fédération bi liggéey liggéey bu rëy ci kër Cheikh Thiénaba ñu koy ñaanal yàlla na yàlla dugal ko àjjana mu dëkk fa waaye yëg na ñëw bi ci bark Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maam Maguette Koumba fa mu ndedd yëg na ko maam Jibi Seck. fa mu tëdd yëg na ko waaye euh, Mame Baka Diop euh, moom tamit fa mu tëdd yëg na ko mam Mandiaye Ndag yëg na ko baam Ali Gueye yëg na Mame Ndag Diop yëg na li nga xam ne moom mooy ñëw Cheikh Thiénaba fii euh, ci fi nga xamee ni macha allah moom mooy tund Toubé waaye baay Aliou Diop mu ndar sëriñ Ibrahima sama xarit la macha allah maa ngi koy jaajëfal waaye Baye Aliou Diop moom tamit yëg na góor gi Khalidou Niang yëg na ñëw Cheikh Thiénaba Baye Abdou Diop lew na. bu ndar yëg na ñëw Cheikh Thiénaba fa mu tëdd ba Abdou Karim Wade yëg na ñëw Cheikh Thiénaba nga dugg ngay ngay maam Ali Khoudia Mbaye euh, góor gi ma Diop Birame Diop euh, Baye Maguette Sylla Baye Balla Diop euh, Gandong góor gi Matar Wade mag ñooñu nga xam ne mag yi Cheikhou Thiénaba la ñoo taxawoon Cheikhou Thiénaba ci tund wi yëg nañ ni Cheikh Thiénaba teg na tànkam ci tund wi Serigne Ibrahima tey dafa mel ni da ngaa dem ba xamutoo looy def wala xamutoo looy wax croiser les bras taxaw jàkkaarloog mbooloo mi impression bi laa bëgg ñu wax ko wàcc na. wallaay jërëjëf Guèye jërëjëf Guèye jërë ngeen jëf avant tout seen liggéey rafet na en amont et en aval jërë ngeen jëf seen liggéey rafet na mais macha allah ay ati at ba nu juddoog léegi mi ngi yàgg na yàggul waaye euh, bis bu mel nii ñun si suñu dund xëy na ñu ngi si doog am une deuxième fois depuis suñu alpha ba léegi ñu ngi doog amal xalif général bu fi wàcc si wàcc si de cette manière donc tey fierté bu rëy la ñu am vraiment di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla eggale lépp si jàmm fa mu tàmbalee ba léegi ñu ngi sant yàlla bu a baax am na yar am na teggin taaliba cene ba fépp fu mu organisé da ngay gis ni yar jiitu na teggin jiitu na ba lépp dana jaar si jàmm vraiment tey suñu mbégte foo ko takk rek weesu na li nga wax rek nous sommes émus nous sommes émus croisé les bras dara war loo ko lu may rek waa cene ba bi ñu ñëwee dañu ànd ak yar ànd ak teggin fekk na fi ñu ñu tax liggéey bi lépp ndax buntu kër yi yaatu na waaye fii lañ jubal si ci ëtt bi wàcc fi lan la jërëjëf walaay lii li naan hasard amul hasard amul lu waaye moom rek mooy la sul xolam kii maamam maam Bakka Diarra Diop moom la maam Momar Talla Seck jëkk mu xaddama la ci tund wi wala fii si njabeen tey bu adduna dox di dox ba xalif doomu maam Momar Talla boobu ñëw fii di caatam ñëw fii ñëw fii nekk xalif général tombeek doomam nekk chef de village vraiment loolu du hasard mérite ñoom ñoo ko moom euh, loolu nag lañu loolu moo gën a tax ñu sant yàlla di wane ni rek pas-pas pas-pas rek moo am lu wóor rek moo am muy kër gii ñu taxaw ak kër gii suñu gannaaw nga xam ne maam roqeetu mhm. mhm. maa mhm. gu jigéen mu di ko omat ñuy dox di ba dem cene ba loolu soxna soosu tey moo tëdd fii ko moom noonu la fi demee jërëjëf bi mu jógee Wuro Madio di dox yàlla yàlla di ko wan yàlla di ko wan mu romb dëkk yu bare romb taalibe yu bare ba dugg njabeen bi mu ñëwee njabeen dañ ne ko kat ñun lu ñu baaxoo mooy kilifa bu ñëwee kër chef de village dañ koy dalal ñu dalal ko kër maam Bakka Jaara gii kër maam Bakka Jaara googu moo jur maam Antu maam Antu jur Baay Ibrahima mii Baay Ibrahima mii def def def def geeru Sinaay def Algérie def fu ne yàlla delloo si tey muy dem di dem ba moom ba moom dëkku njabeen bii maam moom bi mu ñëwee fii ba yàgg fi soxna si ne dama bëgg nga bàyyi ma ma dëkk ak ma Ali Guèye mii sunu garaaw mu dem fa dëkk ak ñoom am soxna su baax su fa nekkoon di ko létt di ko jàppale di ko defal lépp bu gàmmu masaan jot maam Ali moom mooy jël giléem gu jigéen gu weex tal yéegal ko si defar ko ba mu baax ànd ak soxna si ombatal ko ba canab ñu dellu si waat si jàmm di ko def ba soxna si yàlla moom ko ñu rob ko fii si euh, armeelu Njabeen dëgg la jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi maa ngi leen di sant kenn ku nekk turam ak santam di wax ni fii xalifa bi ñëw tey jii fii moo doon kër Baye Baka Diarra euh, Diop Euh, maamam moo nekkoon chef de village su Ndiébène sekk Tall Seck bi mu ñëwee jóge woon ne ba mu ngi jëkk dal Gandon bi mu ñëwee fekk fa Baye Matawadda dem ci Baye Alé Mbaye sa ngay ngay ñëw Ndiébène fekk fi Baye Bakk mu di maamu kii tey mu jóge fi jaar dem Makk Toubé fekk fa Baye góor gi Tambou Diagne dem euh, sa Baye Dembalaw be Mbay dem sa Baye Dembalaw be Mbay àggale fa kon fii mu ñëw tey kërëma fii la Baye Bakk fii la góor gu mag jëkk dal njabeen gi si place bee sama papa nee na ma keroog bi góor gi mag ñëwee fanaante bi keroog lañu ñu teg jànka bi sàkket wi lépp bi benn bis lañ ko def góor gu mag fanaan fii. jërëjëf xam naa Baye Serigne Assane euh, dalal nañ ko ñaanal nañ njaboot gi euh, pour ñu dem si dal yi euh, mën a dallu ba ca kanam bu ko defee rek ñu mën a génnaat nag doog a yëkkati message yi jubale ko ci njaboot gi waaye jubale ko ci taalibe yi kon Baye Serigne Assane noonu. Euh, ñaan na euh, war a jóg nag euh, ñu dem rek ci dal yi jaajëfal njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom gis nañ sëñ Pape Samba mi nga xamee ni moom tamit liggéey bu am solo lay liggéey ci daayira ngay ngay nekk imaamu ngay ngay mu ngi noonu jàll président Abdou Ñing mu ngi noonu jàll waaye Serigne Diop Dior di suñu mag moom tamit mu ngi noonu jàll monsieur le maire Talla Diagne El Hadj Modou Biram su ñu mag ci métier bi mu ngi noonu rek macha allah topp ko Serigne Madiodia mu bàyyi Serigne Assane. Euh, mu ngi noonu Baye Serigne Assane a ngi noonu euh, Baye Serigne Assane a ngi noonu yàlla na fi yàgg te wér euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu ànd ak njaboot gi kon noonu rek la demee fii nga xam ni macha allah mooy Ndiabène Toubé ñaanal mag ñi fi nekkoon démb doon liggéey lii ba tey Euh, ñu jox ko seen i njaboot ñu taw ko mu nekk ndono loo xam ni euh, ndono lu ñu war a jàllale la tamit euh, ci njaboot gi ci suuf yàlla na yàlla def jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci kanam dañuy ñëwaat ak yéen ak yeneen yoo xam ni fii lay xewe ci biir Ndiabène Toubé ci tundu Toubé ak njaboot gi nga xam ni macha allah ñoom ñoo teeru Baye Serigne Assane Seck. ñaan nga di wax amin ginnaaw loolu nag génn nañu tamit ànd ak mbooloo mi ñëw fii nga xamee ni macha allah Serigne Mor Diop la ñu jàkkaar lool moom waa la moom moo ñuy wax fii ñu ñëw Euh, fan la ak lan moo tax ñu ñëw fi si El Hadj Mor. waaw kër gi këru cosaan la boo déggee Serigne Birane Diop Serigne Moussa Diop Serigne amadu Diop ñooy ñooy maam yi nga xam ne ñoo santoon kër yi ca jamonoy maam Momar Talla maam Momar bu mosaan ñëw njabeet fii lay wàcc Serigne Ibrahima Seck bu mosaan njabeet fii lay wàcc Serigne Alpha Mahamadou Seck bu mosaan ñëw njabeen fii lay wàcc jamonoy Baye Ousseynou Xaar bu gàmmu njabeet jotee bu ñëwul bu yabalee sëñ bi fii lay fanaan ak bi ci néeg Moussa Diop ndax fii mooy kër euh, mooy këru cosaan gi kon loolu moo tax tey jii ñu wàcc fii ci Diobène gii na nga xam ni fii lay Serigne Thiénaba baaxoo wàcc Moussa. waaw euh, am na beneen phénomène. Euh, bu ma buñ ma soufflé ci suuf. dafa mel ni njabootuk du njabootuk Thiénaba rek ñoo teeru Baye Assane dafa mel ni fu nekk njaboot jóge na fa waaye ci wàllu organisation bi am na ay taxawaay. waaw euh, comme ni ma ko waxoon ci appel bi ngeen jaaree woon Thiénaba ñëpp la ñu woo bàyyiwuñu kenn képp kuy ashhadu an laa ilaaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah woo nañ la këri diine yëpp. woo invité woo nañ leen mais également euh, association yeeg daayira yeeg imaam yeeg ulama yeek ñëpp la ñu woo ñu ñëw boo ko seetloo mi ma li ma wax sànq ci organisation bi di nga gis ñoo xam ne njëlu sëñ Tuubaa lañ tag kon bàyyi ñëpp ñëw fu am daayira euh, Baye Niass ñëw na fu Hadj si am daayira am ñëw na maam rawaan ay daayira ñëw nañu ba pay fii ñu dëkk fii nag ku ñuy wax Mamadou Abdoulaye Mbacké moo nekk Njaxeer ànd yóbbal ne njaboot gi ñoom ñëpp ñu ñëw ngir yàlla ak sëñ Thiénaba ndax li joxoon mooy sëñ Thiénaba fu mu taaw rek diine ji yëpp la fa taxal Moussa loolu moo waral ñëpp ñëw jërëjëf euh, l'ambassadeur euh, de Thiénaba dans la région de Saint-Louis muy El Hadj Mor ci taxawaay am solo yi euh, jërëjëf ci taxawaayu yu yi ak yu tey waaye tey El Hadj Mor yaakaar naa ni di nga mën a wax ak ñun tuuti ci programme bi nga xamee ni ginnaaw bu ñu demee dallu ñëwaat programme bi fan lañ koy defee ak naka lañ koy tëralee ci penc bi la programme cérémonie bi di amee bâche nañu rafet na jékki-jékki nañu macha allah defe na dinañ fa xaj euh, fii nag ba ñi bëggoon ñi nga xam ne ñëw nañu bu ñu gisee xoolee sëñ bi mu xool leen mu ñaane leen ñu dellu ci dal yi moom mu dugg fii muy dal am na ay kilifa yu fi war a rot si léegi war a saafonte am sàkku ñaan ndax bi ñu nekk responsable politique yëpp ku ko dégg ni sëñ Thiénaba fu mu ñëw war nañ faa dem kon dañoo bëgg bu ñu bu ñu ñaanee ba pare nit ñi dem ci dal mu bu toog fii moom kilifa yi ñëw saafonte ak moom fii bu ko defee dinañ tax ñu am temps fële ci cérémonie ba moom war na waxtaan ak taalibe yi waxtaan ak bokk gi waxtaan ak diine ji mais li ma ci gën a wax naa la fii ba ngay gis nga ki sëriñ ngay y ala Malick Gaye moo fi dee xalifa bu euh, baam ngay seriñ ngay ñëw na sëlifa Paal yabale sëriñ Bassirou Ngom waafes ñëw na ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñu demee fële nag kàddu yi lay doon rek fédération bi autorité yi sëriñ daam sëriñ Mademba Ngagne Sarr ak sëriñ Canaba mu sànni kàddu ñaanal taalibe ñi daal di yëkkati cérémonie mais bu manee nekk ne bëggoon naa ñu def benn point de presse bu ndaw xamu fu ñu koy dugal waxoon naa ne ngeen wute yéen itam kër gu ngeen dal bu ngeen mën a noppalu ñu mën a benn point de presse pour résumer yëpp nag xanaa daa def laaj la nag Moussa dem nga tukki yu bari gis nga événement yu bari suñu événement tey bi nag ban gis-gis nga ci am. waaw xam <laughs> affaire bu doy waar li mooy kii mooy Rajmor wa ma ma ma fàttali leen ni. moom tamit day yëngatu ci wàllu communication. au niveau de Ndar xam na laaj bi liñ ciy mën a euh, mooy liggéeyu maam Amadou Euh, la ñu gis ni euh, macha allah gën na yaatu euh, ndar ñëpp xam nañ ko tey man bi may ñëw si yoon mi sama yaram dafa daw dama ni ndar dañoo leble ñu fayal fay leen ndax ndar bu gàmmu jotee cortège bi ñuy def ñëw dugg ba ñëpp gis nañ ko Thiénaba TV yàgg na koo nataal waaye dañ leen a fay Elage ku liggéey di fayeeku waaye ku liggéeyul doo fayeeku kon taalibe bi may dégg lenn rek la ci mën a dégg mooy ku investir di nga gis revenu waaye ku deful investissement doo am revenu ndar nag dañoo def investissement euh, liggéey bu am solo euh, xam naa du ñu terminer te ñaanaluñ suñu président bi euh, muy Baye Moussa Diop ci liggéey bu mag bi nga xam ne liggéey na ko ci fédération bi nga xam ne mooy fédération bu ndar daayira Tidiane yi waaye ndar di mooy deuxième sortie Baye Serigne Assane bi mu nekkee xalif général premier sortie ba Gossas la woon dañ ne woon Gossas dootu fi am waaye ndar ñoo jël drapeau bi ba keneen di ko nanguwaat ci seen i loxo kon yaakaar naa pour tontu sa laaj lii moom Euh, euh, jéggi na dayo ah. euh, nit mënu koo nataal. Ah. xam naa kii seetaan sax. mënul xam lépp. ndax yaakaar naa ne li nekk ci biti. wala li ñu bàyyi ca penc ma. moo ëpp li nekk ci biir kër gi El Hadj Mor bi ñu jógee fi ñu leen doon teeroo di ñëw. a ah, xool sedd na naa la ko wax. boo xoolee mbooloo mi xool oto yi xool sañse xool dal gi ak yéen ji nit ñi ànd pour te la ma waxoon rek mooy Touba ubbeeku na pour dalal njaboot ma Ahmadou Ndak gi yëpp xajoon nañ leen. ñu ngi leen di tatagal ñu ñaan ñu ñëw ci jàmm nekk fi ci jàmm ñibbi ci jàmm bàyyi ñu fi ci jàmm loolu daal ma ne ay weer a ngi ba biig fi la ma fekk ñëw naa fi ñaari yoon démb fan yëpp dinaa xëy ñëw ci suba gi ñëw ci ngoon gi rek pour lan wéetali sama gaañ ci liggéey bi mais war nañ pas-pas bu ma sëkk te nag li may wax taalibe am na fu nekk waaye tuube day ah am nay taalibe de am na ñu gëm bu baax a baax baax a baax ñoo ngi dooli sant borom bi bu baax subhanahu wa taala euh, yaakaar naa impression yi rek lañu la ñu bëgg a xam euh, par rapport voilà ñu génnal tuuti euh, génnal tuuti par rapport ak ñëw Baye Serigne Assane euh, mbooloo mi ni ñu ñëwee ak teeru bi euh, ni mu demee première impression yi lan la. voilà première impression yi mooy satisfaction générale la ñu am maanaam xel mu dal la ñu am ci ñëw gi parce que wax dëgg yàlla Toubé ak département de Saint-Louis yàgg nañ ko def une mobilisation tey ñoom ñëpp ko préparé jigéen ñi góor ñi kenn desul jigéen ñi góor ñi muxaddam yi ulama yi ndaw yi ñoom ñëpp dañoo préparé bis bi. jigéen ñi nekk en déguisement mu xaar lu ñu mel ni nii magu tarixa bi fii ñoom ñëpp ñu préparé sañ sañ say rafet ñëw ci bis bi taxaw suñu xol nag sedd na ndax vraiment mobilisation bi wàcc na ba def ba ñëw fekkuñu fi suñu xol sedd na moom macha allah sant yàlla rek moo ñu war waaye nag remercier sëñ daam it mi nga xam ni ah wax dëgg yàlla wutal nañu teraanga teraanga ji mooy mooy daara maam mortal bi mu indi fii mënoon na ko yóbbu feneen mais xelam may ko tube kon daf mel delloo na buum ga ba battu ba ca ndaal la ca ndaa ca ndaa la ndax maam maam comme ni ko wax maa amati ndaak xëy na jamonaam ak si fii waaye maam morta la daanaka moo bay fii Baye Ibrahima ñëw teg ci loxoom mu gën a nooy Baye Alpha ñëw kon moom tey bu jëlee tey daara indi ko fii ci biir département Saint-Louis dañ koy gërëm di ko sant en tout cas daal mobiliser nañ lépp luñ ci man ci ressource moom incha allah ak taxawaay daañ ko def waaw xanaa gërëm ak sant re di la gërëm seen jëy yow tam kontaan nañ ci yow parce que bu ñu wàccee foofu ñëw ci gàmmu gi am convoi yow yaa ñu yow yaa ñu yaa ñu recevoir ñu def suñu point de presse fii aussi gis nga ni nga taxaw fii taxawaay bu rafet kon gis nañ la yëg nañ la suñu waaye yëpp yàlla la yàlla fay ci barkan salaas di gërëm sëñ Mor mi nag damay xaar ñu dem penc ma sax waaye kii moom wax dëggum yàlla nañ ko yàlla fayal mënoon na ñëw croiser les bras mais dafa ñëw commencement fii fédération bi mu nekk en gestation da ci def loxoom moog sëñ Cheikh Woli guddeeg bëccëg noppaluñu noppaluñu ak sëñ Moussa Diop ak ñun ñëpp ba fédération bi judd ñoom laaj Pape Samb ñi nga xam ne ay mag lañu ñoo ko yore woon dem ba nga xam ne seen doole ngi néew seen ay rakk ak seen doom ñëw jël mbir mbir mi yëkkati ko ci kaw ba mu am visibilité kon ñoom la ñoo delloo njukkali ñoom la ñoo delloo ngërëm ni allahumma salli a sayyidina wa sallim euh, macha allah secrétaire général ñu ngi lay jaajëfal xam naa Baye Pape Samb euh, kàddu yi barkeelu rek euh, ci teeru bi nga xamee ni tund tuube fédération njaboot gi xaw ma nan laa koy tuddee waaye adduna bi daal ñëw nañ teerul leen leen euh, Baye Serigne Assane waaye canaba tamit kenn desu fa ndax délégation bu fort moo fa jóge ñëw fekk si leen fii nga xamee ni moom mooy Ndiabène Toubé. asalaamaaleykum sëñ Moussa noo ngi lay gërëm di la ñaanal di la sant bu baax a baax yaag ñi nga bokk liggéey bi euh, mbir mi nag yegga na foo xalif yi nanu ko bëggee woon am nanu ko bay am lu raw suñu njàpp. ndax euh, Serigne Assane lii mu def maamam Mortala xaw bàyyam Serigne Mortala sek def na ko ca jamonoy mag ña jamonoy mag ña waaw fi fekkoon ba mu jaaree ngay ngay jóge fa jaar gàndong jaar njebeen jaar màkk jaar ngaleel dégg nga ca kër papa yi euh, booba maamu moo fi ne maam Demba Lawbe moo jur bàyyam Serigne Issa ñooñu ñëpp nag maag ñoom fu fekkoon keroog la ñu fasante kóllëre mu may leen weer da jox leen ijaasa bon Sëñ Asan bu ñëwee defaat lii dafa dafa dekkal rek yal na yàlla doole ko dëgëral yal na yàlla jàppale ko yéen waa cene ba nag am nu seen pay ndax cene eh, nu am lépp lu koy jëmee kanam yëkkati ka ci wàllu loo xam ne lu yàlla gërëm la ku ci jàppale rek sant ndax cene ba loolu la am bañ nañu ko bay ñetti ñetti symbole la ñu am ca bu ci nekk dafa am fu mu taxawee morom muy euh, allo il faut diine bala nga ciy duggee il faut nga xam ko jàng bay xam àll ba diine it àll ba liggéey mooy mooy ñoŋal diine booy liggéey di jariñu di ñaq yàlla dina wërsëgal nga tedd man terle ca doo añaane kenn la moom allahu akbar mu muy jaamu yàlla gi yàlla loolu leen sunt ndax su bindu bindunul ci lenn lu dul nu di ko jaamu bon ñoom bu ñu ñëwee taxawal ñetti article yooyu nga xam ne bu ci ne lu diine gërëm la yarnu ci dañ leen ci sant di leen ñaanal yal yàlla gën a guddal seen fan lépp lu ngeen taxawee yal na yàlla euh, jàppale leen ci adduna bi nag noo ngi leen di gërëm ñun waa fédération département Saint-Louis dégg nga ci ngan gii nga xam tey choisir nañu ko lieu bi nu def ko njabeen pour ñëpp jàppale suñu gis nañu ñëpp noo ngi gërëm ñëpp autorité ak dul autorité ñoo ci bokk yam ñoom ñëpp gis nañ leen kenn ku ne dugal nañ sa loxo yal na yàlla boole nu jàppale bi barakati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liñ ci bëgg lépp loo xam ne lii yàlla gërëm na ko yàlla na ko ful lépp loo xam ne lii nag seytaane bëgg na ci am cër yàlla nañu ko yàlla fonkal bi barakati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum waaleykum salaam uh, wa rahmatulahi wa barakaatuhu kon mbokku téléspectateur u Thiénaba TV uh, loolu lañ leen andiloon uh, ci da ca départ ba ca kër gu mag ci penc maam Ahmadou Ndak àndandoo fi ñu jaar yëpp wan nañ leen ko ba ñëw ca tegu xeer wa ci kër Martin daara jooju di daaray maam moom a Momar Talla Seck bi nga xam ne Serigne Ahmed Dame Seck moom mooy promoteur bi waaye bu ñu génnee foofu ñëw nañ fii Euh, ci Ndiabène Toubé euh, gis ngeen waa Ndiabène Toubé ni ñu teeroo Baye Serigne Assane Seck euh, gis ngeen macha allah teeru bi ni mu mel mu nekk teeru boo xam ni teeru bu mucc ayib la teeru boo xam ni macha allah ñëpp a jóg àndandoo bokk ndey bokk baay ñëw teeru xalifa bi yàlla nañ ko yàgg teeru ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kanam tuuti nag dina ñëw ak yéen. bu ko defee dund ak yéen li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ñu génn ci penc ma sànnante ay kaddu